Euh, actualité bi palmarès Aliou Cissé depuis deux mille quinze ba léegi noo koy jàngatee en fait. waaw jàngat bi ma am tey jii bu ñu doon wax ci Aliou Cissé tey duñ fi jógee. parce que boo déggee duñ fi jóge parce que tey jii si palmarès bi ñu wane. Euh, wane na ne. bokk na mooy premier entreneur sénégalais. bu def Sénégal loo xam ne benn entraîneur mosu ko fi def. Mm-hmm. parce aussi tamit bu ñu waxantee dëgg pas mal d' entraîneur jaar nañ fi mais il est le boo xam ne à part Bruno Metsu bi ñu yóbbu woon final il est le seul entraîneur boo xam ne li mu def kenn defu ko fi mais aussi mun na nekk beneen façon beneen jàngat aussi jox nañ ko chance boo xam ne aussi tamit musuñu ko jox benn entraîneur sénégalais musuñu ko jox benn entraîneur bu fi mus a jaar aussi tamit ñaari jàngat yooyu laa mun a def sur le plan palmarès aussi pour man Alioune li mu waroon defal Sénégalais yi def na ko mais après bu ñu gënee xuus ci débat bi gën a xuus ci waxtaan bi dinañ leen mën a tojal les points positifs les points négatifs parce que liggéey boo gis am na lu ci positif am na lu ci négatif maintenant ñun on dañ fi nekk pour ko wax ak Sénégalais yi expliquer leen mais li ñu mën a wax ci palmarèsam Aliou Cissé gàcc ngaalaam lan nga jàpp li mu réaliser pour en dehors ci sens bi ñu ko ci kaw équipe non pour man xam nga secret man premier de choses li ma njëkk a jàpp mooy Aliou Cissé chance bi mu am mooy sénégalais temps bi ñu ko jox équipe nationale. parce que nag bu ñu fàtte ne équipe nationale Sénégal saa yu fi daan nekk entraîneur yi fi mos sa jaar yëpp. un deux ans ngay def maximum. man mi di wax ak yow Cheikh Sidi Ba xam na li may wax. Géna Coupe d' Afrique Géna Coupe d' Afrique je pense que. man joué naa moom son premier sélection ici à Dakar c'était Sénégal Côte d'Ivoire. maax moom ñoo bokkandoo terrain. mais man jàngat bi ma mën a am si moom. jour boobu lay doog a ñëw si équipe bu équipe nationale bi ñuy dajee Côte d'Ivoire mais si biir daje bi ñu doon dajee Côte d'Ivoire. li ma mën a jàng si Aliou Cissé. Ah. jour la boo xam ne bi mu nekkee si biir terrain bi. dafa amoon personnalité. c'est-à-dire quelqu'un boo xam ne dafa am caractère. Mm. cest à la. Mm. je pense que leader boobu mu leader boobu mu amoon comme en tan que jour mm-hmm. parce que pour lan ma wax ko parce que man dama bokk ak moom terrain si benn mat si benn mat su boobu gis naa comportement si mm-hmm. biir comme laa ne kii Alioune mi leader la parce que yàlla rek a tax may wax mm-hmm. leader bi parce que souvent joueur bu ñëwee en équipe nationale son premier match dafay am benn kerse mais moom dafa ñëw mel ni si équipe nationale bi def na si pendant des années te boobu moo doon premier match am donc foofu dafa monter leader leader boobu nag pour man bi mu doon def ci terrain bi ba nekk capitaine d'équipe bi nationale leader boobu la jël incarné ko en tant que entraîneur loolu tey moo ko may résultat yi mu am. Mhm. loolu tey moo ko may résultat yi Cheikh ñu ñëwee bi la forme la ko gisee. Ah, pense palmarès su Aliou li ñu ci mënti wax mooy euh, c'est un palmarès positif. Mhm. c'est un palmarès positif parce que je pense que. def na fi lu fi kenn mosul mosul musul musul musul musul mosul def et que il faut dire aussi euh, les Sénégalais lui ont donné